ليل ليل على كتف النهار Mouhamadou Lamine Diop sigil na Sénégal foofee ci Émirats arabes si ab jongante bu ñuy amal bu tudd prince des poètes maanaam buuru taalifkat yi bu dajalee bépp nationalité ci àdduna bi fépp ngir gën a mën a ñoŋal jàngum alxuraan ak làkkum arab gadan sayadhaku man yabki li'illatihi fa yaxruju lleyl min adgaali uzlatihi wa النهار رحب أغنية من الن... لوغال محمد لمن جوب غن غانيه كو سي جونغونتي موي تي جوروم نيتيلوب با دا فا امال اب تاليف بو داو يارام لولو ام نياخ فوك اك جوروم نياري محمد الامين جوب من السنغال الف الف مبروك <laughs> ألف مبروك وبالتوفيق في الخطوة القادمة بإذنه تعالى تعرفنا إذا على الشاعر الذي أحلت لجنة التحكيم إلى أمسية النصب نهائي من مشوار المنافسة ginnaaw bi كم defee kéemtulaay جير سنغال Sénégal غانيكو a mën a أمال فينال réew bu arab yi ba tax na Mohamed Saïd Agne di ab Sénégal itam di républicain si wàllub citoyenneté et émergence force di woo képp kuy doomi réew mi ngir mu jàppale ko bu baax ci vote yile ki nga ministre de la culture président Macky Sall soxnaam di ngir mu jàppale Sénégal boobee mu am ndam ci kanamu àdduna bi yépp Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.